tay ñu ngi rafetlu bu baax euh, cérémonie bi bi nga mo ñu dajalé fi tay tay dañ doon sargal di mais aussi ay artisans vulcanisateurs yo euh, leen financé à travers un programme bi pour que ñu def session de formation euh, ni euh formé nañu juroom euh, artisans mécaniciens yo ont renforcé en capacité sur euh, la gestion électronique des systèmes embarqués dans l'automobile Nous savons que l'automobile automobile a technologie bu bees bi dañ leen ci war a parce que sinon ni muy évoluer suñ ko suñ ci àndul dans la formation ils vont être très rapidement laissés en rade loolu moo taxoon tey euh, DER lëkkaloo ak centre de formation bi nekk Diamniadio muy centre sectoriel pour que jéem a accompagner ces artisans pour leur faire un renforcement de capacité pour que technologie yu bees yi nekk ci automobile ñoom ñu mën ci am ay xam-xam pour que bu ñu delluwaatee seen garage nous pouvons réparer oto yi de façon beaucoup plus euh, efficace Benen bi moom mooy ne euh, tagat nañu artisan yi ci walu gestion seen entreprise parce que ñom ñep ay chef d'entreprise lañ ku ci yoré garage chef d'entreprise la wayé luñ si luñ la tagatul rek mëno ko xam ni ngay gérer sa entreprise euh, de façon informelle day tax entreprise bi du performante wan entreprise au même titre que les concessionnaires ou les grosses entreprises il suffit tout simplement que nous organisions nous. ñu jàngal une gérer cette entreprise nous la un bilan financier nous gérer trésorerie bu faire ko defee dinañ entreprise nous avons fait ñoom ñëpp formation ils ont travaillé pendant 5 ans 10 ans waaye li ñu taataan ci xam-xam fii permettre chiffre d'affaires bu ñu ñu multiplier par deux wala par trois. secteur artisanal est un secteur qui am solo ci biir réew mi suñu nous réew développer il faudrait pas que nous nous wu seulement ci grandes entreprises Il y a un potentiel énorme au niveau du secteur semi-forfait moom mooy les artisans donc les artisans ont besoin d'être accompagnés je pense que looy liggéey boobu lay DER di def centre de formation de référence bu Melny, pour nous renforcer en capacité et travailler sur la formalisation. formation boobu vraiment madame la ministre di Jotali santam ak ngërëm waa DER waa DER yi nga rendre facile nous tax formation bi tey jii mën a sotti ba nga xamante bénéficiaires ñu ngi sax ñu donc laajtewaat ñu dolli leen mooy deuxième sens bi nga xamante ni moo waral ñu teew fii parce que président son excellence le président de la république dafa consacrer aussi un décret sur la formation continue Quoi formation continue mooy ki nga xamante ni dafa mën nekk professionnel mais comme àdduna day dox day laaj toujours ay ay compétences yu pour nga mën à adapté environnement. environnement bénéficiaires yi demandé nañu la VAE na egsi bu baax a baax si mais bénéficiaires yi plusieurs attentes yoo xamante des dégg ko bi nga jeunes yi nga xamante ni ñooy bénéficiaire loolu dañ koy parce que 30 ans 35 ans il faut que ñu adapté ko suñu ay réew ñun suñu yi on a des jeunes am fa jeunes de 40 ans donc dafa faut ni lu mel waaye ñu ngi koy jottali aussi suñu kilifa yu mag yi nga xamante ni am na jataay yu nga xamante ni ñoom ñoo fay teew kon fee ñu jottali leen ko ñu wax ñu ci liñ ci demande boobu ñu mun koo satisfaire.